indi mooy sorti chef de l'État waaw day dugg rek ci li ma wax sànq mooy mbooleem euh, kilifa politique yi nga xamante ni euh, dañu nekk ci phase boo xamante nii ñii dañuy menacer ñii di di di di di fippu ci loolu lañu gis te te loolu indiwul jàmm ci réew mi euh, kii ne day dinaa dinaa taal réew mi kii ne ko mënoo maa loolu ay jafe-jafe la ñuy jur loolu moo war a tey suñu taxawaay bi ah yaakaar nañu ni bu ñu demee ba nga xamante ni chart boobu taxaw na incha allah euh, dootul am kuy xoqatal keneen it du tontu ndax tontu yeeg xoqatal yi ñooy indi euh, li ñuy wax esca escalade ver escalade verbale te escalade verbale mooy indi euh, ay manifestation indi ay ay violence physique ci ci nit kon dañ ciy woo mbooleem kilifa. Euh, politique yi mboolem way politique yi ci seeni kàddu euh, ñu mën a wàññi dagar gi nit mën naa wax soxlaam nit mën naa wax bébétam ci réew mi nit mën naa wax lamu mu euh, mbébét ci programme politique am sans muy indi ay violence ndax dañuy wax ne ñu wax ni violence mooy l'arme l'arme des des des faibles kon nag dañuy ñaan yàlla lii ñu jëm muy charte boobu mu nekk base liggéey ngir mën a indiwaat jàmm wàññi escalade verbale yooyu euh, question yi may wax ni wala day wéy waaw ndorteel la euh, occasion bi ko indi mooy élection yi waaye li ñuy ñaan mooy mu nekk loo xamante ni day sax ndax wax naa ko démarche proactive la ñu bëgg a adopté léegi wuuteeg démarche bu njëkk bi nga xamante ni dañ daan euh, réact dañ daan réagir rek ci événement yi ah dañu yaakaar ni bu fekkee ne lal nañu chart boobu ba mu nekk charte bu taxaw euh, day fexe ba mu faagaagal mbooleem événement bu mu nekk événement politique wala mu nekk événement sociaux boo xamante ni mën na indi ay ci réew mi nit ñi koy ña seq wala boog euh, way politique ya koy seq war nañoo mën a adopté charte boobu ngir mu mën a faagaagal mbépp euh, problème violence bu am ci réew mi faral di wax ni ci réew mi justice Euh, dafa war a indépendant ma wax ni man toujours mooy justice moom la mu war a am ci indépendant par la séparation des pouvoirs am na léegi nag li ci des mooy magistrat yi seen bopp ñu euh, dëggal indépendance boobu loolu mooy tax ku ñu woo ci wàllu euh, yoon xel du tey ndax dafa am ay soubassement politique wala déet ah te loolu nag dañ ciy woo mbooleem ñi nga xam ne ñoo way ñoo ŋànk euh, justice bi ngir ñu fexe ba loolu nga xamante ne léeg mooy teeyal xel yi mu ci convocation yi mu bañ di am euh, jeexital ci askan bi ah ñu ñaan it ñi nga xamante ni ñooy euh, li ñu woy le justiciable ñu am tur wala ñu ñàkk tur kuñ ci woy it nga dem wuyu ci anam bu mu gën a rafete ndax loolu mooy aussi indi mooy mooy crédibiliser justice bi ci ci réew mi waaye bu fekkee ni ku ñu woo rek nga ni man du ma wuyu ndax euh, dañ ma dañ ma bëgg xoqatal wala dañ ma bëgg euh, dina indi ay jafe-jafe ci crédibiliser justice mais aussi mën na indi ay fitna ci réew mi ndax woote pour nit ñi ànd ak yow ca tribunal loolu jafe-jafe la mën na jur wa tabarakallah